waaw ba tax na kon nag ñaare koo gis mu bëgg werante rekk xam-xam ba des na koo gis mu bëgg werante rek amul kilifa waaw koo gis penc mu mu romb man fa yendu amul kilifa waaw kooku mooy dëgg moo tax imaamu Shafii yi ci ni mu toll ci ni mu toll ba toog amee téeréem di bind benn waay romb ko ni ko ñu ni yaa fi raw ñu ni yaa fi raw du dëgg doo kenn muy bind rekk nag benn jarbaatam ni ko doo ko tontu bind rek bind bind bind bind ba la ma doon bind jeex mu dagg la def ca kayit gi dal di cay def قالوا سكت قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح آه. قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح